fekk fi ñu baax fekk jigéen ñu jàmbaar di indi nuyoo son excellence monsieur le président de la république suñu président bu excellent boobu di liggéey mu réew mi le gouverneur de la région de Kaffrine di nuyu monsieur le préfet monsieur le sous-préfet di nuyu les chefs de service et les directeurs de service de la région de Kaffrine di ñëw nag di beral nuyoo monsieur le maire Abdoulaye Wilane di ko sant bu baax di ko gërëm di ko remercier bu monsieur le maire remerciement yi may wax sama xol laa ko tibbee parce que nag li ma naan gàndal nit wóorul balaa nga xam sa waaye dangay dem ba këram waaye monsieur le maire sama xel dafa dal ci yow sa taxawaay laa naw sa générosité laa naw parce que mun a jafe ci man nga yombalal ma lépp jox ma lépp bàyyi ma ak lépp soo gisee ma def témoignage boobu nag dama ne jàmm di président Macky Sall bëgg loolu nga incarné fii ci département de Kaffrine loolu nag duma ko mënoon xam tant ñëw ma fekk si leen fii nga généreux nga baax parce que maanaam générosité ak baax du ci ay wax ay jëf la loo jëf man rek mat na ci yaram bi ak teggin bi ak teraanga bi nga xam ne damaa ñëw département de Kaffrine fekk sama collègue monsieur le ministre l'excellent ministre Abdoulaye Seydou Sow nga jël lépp jëfal ko ko ko te mënoon nga ko bañ a def kon monsieur le maire maa ngi témoigner fii ci waa Kaffrine jàmm jooju nga xam ne yow yaa ko sookee ndax yaay nekk au cœur yal na sax bu saxee seen jàmm la yéen waa Kaffrine bu saxee seen njëriñ la yéen waa Kaffrine kon alhamdulilah rabil alamina ba nga xam ne ñii ko séq ku ci nekk rek yaa ngi taxaw bi nga war a taxaw yaa ngi delloo cër bi la joxoon kenn président de la république parce que loolu mu def. tànn bi mu tànn fii ci Kaffrine dafa wane ne am na vision xam ne fi mu jëm xam na li mu bëgg moo tax mu doxale noonu ku ci nekk may ko cër boobu kon monsieur le maire maa ngi lay sant bu baax di la gërëm ci sama tur ak de délégation bi ma àndal su ma la nuyoo sant damay nuyu monsieur le président du conseil départemental de Kaffrine mon frère Adama Diouf moom tam maa ngi koy nuyu bu baax di ko sant bu baax di ko gërëm waaye nag di beral nuyu di sant di gërëm moo frère monsieur le ministre de l'urbanisme monsieur le ministre Ablaye Sow Assa Seydou Diouf Ablaye Seydou Sow maa ngi koy nuyu bu baax moom tam di ko sant bu baax di ko gërëm su ma ko nuyoo nuyoo naa ñi moom ñu bàyyeel ku ci nekk rek ci kër gi wan nga ñu ne suñu kër la ñu ñëw jàppale ñu yaatal ñu teral ñu teral ñu ànd ko ak monsieur le maire Ablaye Wilane kon sant ak gërëm lañu ñu amel képp koo xam ne doomu Kaffrine nga yàlla boole ak président nga am taxawaay ci lay sant bu baax di la gërëm di nag sant jigéen ñi bu baax jigéenu Kaffrine gàcce ngalaamaay yéen ngeen nekk ay jigéenu jàmbaar di teel a xëy di mujjee tëdd di liggéey pour jàppale seen ay njaboot loolu moo tax ma naw loolu moo tax ma bëgg leen loolu moo tax ma fonk leen su ma nuyoo jigéen ñi nag dama koy teg ci loxoom honorable député Amy Ndiaye ñimi honorable député ngeen tànn na ko mu toogale assemblée nationale am fa taxawaay bu rafet di nuyu sama sœur au conseil des collectivités territoriales Ndeye Sika Diouf ma leen nuyu baax la sant baax di la gërëm su ma nuyoo jigéen ñoo liggéey naa jigéen ñi fi teew ñëpp toutes les femmes leaders maa leen nuyu di nuyoo Adja Khady Diouf madame la présidente moom tam maa ngi koy nuyu Khady bu baax di ko sant baax di nuram adaa Khady Ndiaye ma fekk dem moom tamit muy doomu Kaffrine yàlla dogal trois fois de suite muy jël coupe président de la république autonomisation de la femme loolu firndeel na ne jigéenu Fatick jigéenu Kaffrine yi ay jigéenu jàmbaar lañu